noonu nag la mel ni nit nit am na nopp am na bët am na loxo am na tànk noonu la mel ci ñi gim Jésus bu ñu gimee Jésus war nañu booloo di liggéey liggéeyandoo ndax nguuru yàlla ku nekk ci ñun dafa am foo féete nekk benn yaram maanaam ñu ngi ko tuddee jàngu jàngu bi dafa doon ay nit ñu bari te ku nekk am nga njariñ ci jàngu bi ci jàngu boobu nag yeesu mooy bopp bi mooy bopp bi ci yaram bi yépp te yàlla ci boppam dafay jëriñoo chrétien bu nekk mu liggéey ci nguuram yaa xam li la yàlla may su fekkente woy la wala jàngale la wala jàppale nit ki dimbale nit ki am na faw lu la yàlla may loolu yàlla dafa bëgg ñu liggéey ci nguuram di jàppale yaram bi mu mën a dund ndax bu yaram bi deful loolu dafay mel ni dafay feebar te yaram bu feebar gënul nañu bokk booloo liggéeyandoo te xam ne liggéeyu yàlla du jaas mukk benn bés ñu ñépp ku nekk dinga jot sa pay